sëriñ abibu mbàkke moom cheikh Momad Fadal mbàkke di jëwriñ Touba ca kanam ànd ak rakkam di sëriñ cheikh Awa Balla mbàkke lu ñëwoon doon visité sixième édition foire internationale bu Kaolack sëriñ abibu ànd ak kilifa yi ñu wër mboolem stand yi nga xam ne ñoo nekk ci foire bi ñu leeral ko lépp lu ci jëm mu santaat bu baax sëriñ buub ci liggéey bu rëy bi nga xam ne def na ko ci dëkk bi nga xam ne moom moo di Kaolack sëriñ buub nag kon la ñaanal ndax fii ñii la taxawee fii dara ko fi mu doon fu fu ñaxee fu doy waar te yeesal ko ba kenn ku dikk di fi daan doole di fi am réew mi kenn ku yàlla fi as wërsëg lu mën a toll lu mu tuuti tuuti boo nga caa feeñal sa yéene biir ñu xam ne yaa defoon yàlla la ngam yaa ko doon jaamu yàlla moom ci jaamu yàlla yi yaakaar naa ku ñëw fii dugg jàkkaarloo ci Ca Kanam nga jëkk koo jot da nga xam ne dox na jox na koy té loolu mooy couleur yi nga xam ne moo feeñ te li nëbb moo jàpp naa ne bu xëyee Dakar tey jii ne ko damay def lu mel nii mu ne ko dinaa ci ñëw démb la ko wax mu ne ko maa ci ñëw dogal na ko ngànt ba tàyyi nag waaye si mu ne ko dinaa ñëw na man nañ ñëw ñu dem bu newee wan nañu leen kat moom ak ñun de benn lañu. sëriñ Abibu Mbacke moom cheikh Mouhamad Fadal ak rakam di sëriñ cheikh aw bala Mbacke ak mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoom lañ àndaloon ci visite bi bi ñu agsee ci stand Touba ca kanam ñoom kilifa yi li ñu njëkk def mooy yëkkati ay koppar daal di dagg ci reçu yi. waaye it ñoom kilifa yi ñu seedeel bu baax sëriñ buub ci taxawaay bi nga xam ne am na ko ci Touba ca kanam ndax liggéey bi nee ñu kenn mënu ko ci saa yu tubaa ca kanam soxla sëriñ buub da ciy jëf jëf ju kawe. képp ko waate ku la wuyu bëgg na am ndam ku la wuyu nag bëggul nga am ndam moom mii dafa ñëw wuyu si wuyu si waat ñu wuyu bu njëkk bi da am matériel yu soxla woon loolu il faut ñu laal ko nit ñi xam nañ ko ñu xamul xam ko nga xam ne moom sëriñ Touba rek tax bu jëf tey ñun duñu suur kere ba ma bi ñu soxla euh, benn pelle mécanique ba ko jënd ba ñu waxee prix ba xaw naa koy waaye mu ne ginnaaw si yéen soxla wàññi naa ko wàññi naa ko wàññi ko ni ko suñ bi waxee rek ba loo xam ne sax wóor moom ko jaay engrais sax du ko jaay loolu tolloo euh, lépp suñ tax ma noppi ma ko sëriñ mu naa ma koy taalibi sëriñ tuwaa nga sa waaye mu ne ku ne xamoon lu liggéey ci yoon wi samaam yooyu ci ci la ñu woon kon danaa bëgg nga lijjanti ci liggéey bi ndax man moom moo ko moom moo ko kenn moom moo ko suñ tuwaa ko moom te Sëñ Tuubaa boo ko lebee kees bu mu fay di guddi mu ne ma kon ne naa joxe benn bu toll noonu bés ba xam sept kilomètres la ñu ko teg ci euh, Porte Sarr indi ko Tuubaa jébbal ñu ko ma ne sax yëgal ko mu ci loolu ma baax yàgg nañu def lu baax Sëñ Tuubaa kon Mbàkke kon mbub ñu ngi sant baax di fi ngir publicité si Ca Kanam Touba Ca Kanam Sëñ Tuubaa ko publicité boppam euh, dañoo fas yéene nekk ci rek fekk yàlla du moom ñu ñaan yàlla di sàkku ci ngeen ñaanu yàlla buñ ci suñu bopp mukk waaye yàlla yàlla nga jëf ji te nëbbuñu jëf ji te doomu aadama bi su defee dara gis na ko rek jëf ji àqoon kóllëre gi nga xam ne moo dox ci diggante Serigne Buub ak Serigne Abibu Mbàkke moom Cheikh Amadou Fadal ak rakkam di Serigne Cheikh Awa la lu yàgg la ndax ma nga doore woon ca daaray kokki sëriñ Buub santaat bu baax a baax njabootu Cheikh Amadou Fadal Mbàkke gi nga xam ne bàyyi nañ seen yitte ñëw fii ci foire internationale bu kaw Kaolack ngir visité ko kon sëñ bi ñun li ñaan waxtu ne rek ngeen dañu soññi pour ñu gën a mën a def lu baax ndax def lu baax rek ci li ñuy amee lu ne ndax sëñ bi moom li mu wax wax na ko noo ko jàppee mu jàppal la ko rek waaw te loo ko jàppee boo ko jàppee benn dana la jàppal dana la jàppal boppam waaw kon nag euh, man daal damay am mbégte lool ndax yaa ngi nii Dakar ngay delluwaat waaw te Dakar su ne woon sa sax laa dégg waaye jóge Dakar jógee Dakar dem di seeti sa sa sa sa sa rak nga wëlbatiku ñëwaat kawlax delluwaat ci circulation bu métti bi rëy na loru waaw ah, waaye taalibe yi rek leen ko jaral loolu moom am ñoom tamit ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax a baax. kilifa yi ñaanal nañ bu baax a baax sëriñ buub ci yéene gi nga xam ne moom la am ci dëkk bii di Kaolack mu matale ko waaye am ndam ci foire bi nga xam ne bokk na ci liy suqali koom-koomu Kaolack.